ak ay solution am na ci. Mhm. Euh, solution mënul fi ñàkk euh, Pape Sané Dakar nga xamante ni géej gee ko wër euh, Dakar bi bu tawee tuuti rek voilà ñëpp am ay jafe-jafe même sept cent et quelques def nañ ko si Abdoulaye jéem na ñoom ñëpp lajji nguur gi moom amuñu droit di lajji ci biile jafe-jafe muy wàllum inondation waaw merci man dama jàpp ni que nguuru président Bassirou yi am na chance chance bi mooy lan mooy dañu am recul. maanaam mun na toog tegaat li nga xam ne moo fi amoon daaw daawaati géej daawaataati géej mhm. mu nekk seen benn euh, postulat de départ gis nañ ni que inondation bi bi mu fi commencé au début des années 2000 ñëpp gis nañ ni que c' la déstructuration de de Dakar mhm. moo jur loolu Moustapha a été très gentil naan nit ñi dañu dem dëkk fa nga xam ne ñu foofu dëkk mhm. mais Moustapha il faut rappeler que ay ay ay ay ay politiciens ay responsable ci nguur gi ñoo jël suuf fa nga xam ne nit war a foon ñu dagg ko jox ko ay nit ñu dëkk fa. zone de captage mu ngi nii. Euh, je crois que yaa ngi koy yaa ko doon fàttali. daaw ak biir foire bi. waaw foire bi quartier yooyu ñu fa cité yooyu ñu fa dagg yees. mais euh, man bi ma laajtee dañ ne ma li taxoon bokkoon ci xam nga moo daggoon foire bi. Mm-hmm. ñu ne yaatu yaatuwaay bi ñu doon wax ne lu ñuy doyee lépp. mais parce que daf bokkoon taw yi daan jóge yoof ouest mm-hmm. foire yooyu yëpp su wàccee foofu lay. taal foofu mais léegi amatu ko. zone de captage bi ba ci sax euh, foofu ngay wax noonu ci Ouest Foire euh, nee yoonu ndox la woon euh, ba ko Abdoulaye Wade découpé ak ñu ni mel si nañ fa créé ay zone yoo xamante ne nit waru fa dëkk moo tax bu tawee rek jafe-jafe am fa tout à fait fii moom dañ ko bañ zone de captage dañ ko bañoon ba tudd tuddee ko woon route des puits mhm. waaw route des puits avant indépendance route des puits lañ ko tuddee woon mooy maanaam tellement que ndox mi doon jógee fu nekk ci Ndakaaru fa la doon daj dajaloo amadu Ba amadu Ba mi ku ñu yab la nag. ah Amadou Ba mi ah. ancien premier ministre. Ah. ma ne ku ñu yab la. Ah, lu mu def. Ba moom mu nekk fi premier ministre Sénégal ñaata at. Mhm. ay xale di dee ci géej gi mos cee wax. Mhm. tey muy bind communiqué naan mi ngi naqarlu 89 xale yi nga xam ne ñoom ñoo faatu ci ndox mi ci géej gi. dinaa si ñëw deuxième point bi loolu la waa APR waa Benno yi ñuy jël di jox kàddoo ku yu ni mel. <laughs> oui Pape Sané euh, euh, mais. tey moo tax ma mais mais wax nga wax nga lu am solo euh, parfois dañuy reprocher askan bi ni leen fi ngeen dëkk waroo leen fa dëkk mais bu ñu fa dëkkee euh, SONES da leen fay fekk SDE da fay e, fekk Senelec da leen fay fekk euh, lépp da leen fay fekk finalement dañuy naan fii ñu dëkk dëkkuwaay la dëkkuwaay la xam nga moo tax ma ne en fait c'est c'est un peu ça parce am na ay yi nga xam ne mais mbindeef mënul woon xalaat ci ay jamono dëkk fa mhm. waaw mais finalement la sécheresse aidant boole ci yenn politiciens véreux yi nga xam ne pour ñoom Euh, seen yoon nekkul ci dara aidé en cela par certains fonctionnaires ñoo créé beaucoup de quartiers mais pas pour te dire la vérité xoolal euh, fii quartier bi Ablaye Wade toxaloon pour créer euh, plan Jaxaay mm-hmm. nu mu tuddati Gounass waaw Gounass mais malgré tout ce qui a été fait là <laughs> mais ba ba tey ji am nay politiciens parce que nit ñi jóge nañ fa. est-ce que du tey la gën a peuplé sax que avant. waaw ñu defaraat defaraat terrain jaayaat encore kër yi donc nous. en fait c'est nous qui avons un problème nous même quoi ñun Sénégal. mais man pour man dama ne ce problème problème inondation bi d'abord un euh, l'État a le temps de faire un audit mais comme l'a dit Moustapha tout à l'heure mhm. pour gérer de manière conjoncturelle cette situation parce que structurellement wax ne que état bi mun na ko gérer ah nii nii nii nii. mooy ñoom seen bopp dañuy nax seen bopp mais conjoncturellement mun nañu teg ay dispositions yi dispositifs yi nga xam ne. mun nañu gérer inondation yi. je crois même que loolu la Bassirou Diomaye Faye wax tey ah. voilà que taxawu population yi. mooy mode pompe wax ak yooyu. génie militaire mu ngi fii. Mhm. oui euh, les sapeurs pompiers sont là service d'hygiène mu ngi fii euh, élément wu GMI ak LGI ñu ngi fees dell ci camps yi et consorts. plus justement maintenant les jeunes yi nga xam ne ñoo nekk ci quartier yi. Mhm. moi je crois que il suffit d'une bonne volonté rek mooy maanaam nan organiser leen au niveau des quartiers. Mhm. ba nga xam ne les moyens daañ ko jot peut-être sous la supervision des supervision des maires ou des sous-préfets ou et préfets euh, ñu jéem a fexe ndox mi bañ taa parce que le plus dangereux ci mbir mi du question inondation am déedéet. Mhm. mais inondation am comme ni nga ko waxee di fa toog un mois un an ndox mi di fekkante mooy danger bi mais bu dee am na tey jii mu taw. suba gannaaw suba ñu fexe ba évacuer ndox mi ainsi de suite ainsi de ainsi de suite ba génn ci nawet bi à partir de ce moment nag mun nañu dem di. xool nag def ay projection sur vraiment structurellement nu ñuy def ba justement gérer ces inondations là. Georges mm-hmm. mm-hmm. set setal euh, président de la république ak gouvernement bi woote mais set setal bi euh, peut-être bu ñu paree ci mbalit yeeg euh, yi ne ci mbedd yi est-ce que du ñu dugg ci li nga xamante ne mooy ñi fi yoroon ay responsabilité parce que tey li ñuy wax ci inondation bi ay nit la ñoo xamante ni dañu njort ni alalu askan bi dugaluñ ko fi ñu ko waroon dugal bu ñu ko fa dugaloon tey ji peut-être. inondation day doon un mauvais souvenir euh, lu mu tudd li ñuy wax ci BRT bi nga xamante dem démb dafa lóor aussi ñooñu tey euh, au-delà de euh, rendre compte reddition des comptes defu guñ ko mais ñoom dafa mel ni dañ leen joxaat benn virginité ñiy wër ci plateau yeeg ci rajo yi di wax di jox jox leçon Moustapha wax na léegi Amadou Ba mi nga xamante ni tey mi ngi naan day ñaawlu xale yi nga xamante ni dee nañ ci géej gi alors que kenn mënu si génne li nga xamante ni mooy sa responsabilité Euh, effectivement am na ñoo xam ne ñu ngi commencé di wax depuis euh, depuis depuis démb laay laay wax sax ne bu ñu gisee taw bi ñu naan voilà ñii euh, ñi fi nekk tey ñoo doon wax ne bi ngeen ñu joxee réew mi en moins de dix jours wala bu taw dootul am kii mën a tax sax inondation dootul am Sénégal mais ñoom mënuñu wax loolu. loolu ça ne peut pas être une promesse de Ousmane Sonko ou de Bassirou Diomaye Faye c'est pas possible. <laughs> parce que ñoom bu ñoom li indi inondation Sénégal ak Sénégal nu mu mel bu nawet amee loolu kenn du jël risque ne man su ma ñëwee mën naa ko dindi en cent jours. c'est pas possible parce que xam nañu lan moo indi euh, inondation yi wax naa la fi léegi inondation yi fii en tout cas ñu mu gën a taree c'était depuis cinq période Macky Sall bi nekkee premier euh, ministre de l'intérieur. Mmh. Kon des nekk ministre euh, premier ministre. ñu gi dindi xaalis bu bëri encore donc ñooñu tey au delà sax ñu nee naa la au delà ñu auditer structure yu ñu yore. mais reddition des comptes dafa war a am. si ñooñu. parce que 700 milliards c' pas 700 mille milliards. donc loolu quand mënuñ ko passer par perte et profit. du 70 milliards milliards te ñu ko fi ñu koy yoroon mais xam nañ leen. Mm. ñu ngi fi structure yi nga xam ne ñoo chargé woon ñoo yoroon gestion inondation yi mais xam nañ structure yooyu xam nañ kan moo fi mas nekk directeur mm-hmm. am na yaay quelqu'un boo xam ne du ma ko cité mais gis naa gars yi commencé sax di ko sànni ay xeer ay di wax nag parce que tout simplement dañu ne woy c'est un ancien de ancien directeur ONAS la woon quelque chose comme ça moo gën a xam fi 700 milliards yi jaar mais quoi qu'il en même bu nekkee transhumant je d'ailleurs je n'aime pas que je ne je ne veux parce que. saaxo ngay wax. waaw. Mm-hmm. moom moom la ñuy wax. Mm-hmm. gis naa le doyen Adama Gaye le journaliste Adama Gaye di ko dugg rek chaque jour foofu temps yëpp moom lay foofu moom lay moom lay xëyee moom lay gonto mais foofu mu wax si 700 milliards yi jaar même du moom kenn moo doon gérer inondation yi moom tamit. Mm-hmm. inondation yi kay euh, jamono Macky Sall Macky Sall boobu dem na fii euh, Kër Massar. Mhm. bu muy bu muy lu mu wax ne yéen maire yi yéenay gën a kii inondation bi parce que yéenay fekk euh, zone boo xam ne kenn waru fi tabax. ngeen jaay ko ngeen jaay ko population yi. wala ngeen lotissé ko. Mhm. te yooyu ay gars yi ñoo ko doon def te kenn mosoon topp justice. donc au delà set setal bi set setal bi encore une fois baax na. Mhm. li gars aussi. et puis engagement yi nga xam ne moom les jeunes sénégalais yi wone si set setal bi. buñ ko wonee si lii rek li xew nii. Mhm. si mbënn mi. Mhm. yaakaar naa mën nañu trouver une solution boo xam ne ne permettre zone yi nga xam ne c'est des zones yoo xam ne dañoo am inondation ñu mën a traverser nawet bi sans beaucoup de dégâts. Mhm. surtout avec comme ni ko président de la République waxee avec l' appui de, de des forces de défense et de sécurité. mais ñooñu bon mën nañu def lépp ba daal. fu ñu dégg ne na ñu mën a fexee ba. du am des des des pertes en vies humaines parce que ndox ba du fa yàgg. parce que ndox ba bu fa defee une semaine deux semaines rek danger day daal am parce que. parfois xale yi du xam fu ñuy dox. Euh, comment on appelle jur ji aussi parfois ngay gis koo xam ne day dox wala mu dugg atelier am dégg naa am na koo xam ne daa dugg atelier am rek am na lu mu doon laal foofu. ci électronique. Mhm. donc yooyu xam nga mooy mooy lan mooy que ñu fexe daal ba. dina ay ay ay solution yi nga xam ne. ndox mi dootul nekk benn place. bay dem bay jël une couleur verte la mm-hmm. ba nga yaakaar sax ndox mi def na fa ay at nit ñi di togg ci kaw lal yi di togg ci kaw gën a mm-hmm. seen gën ah, seen kër pendant la durée de toute l'hivernage loolu nag c'est parce que ndox mi daf nekk en permanence mm-hmm. donc loolu loolu président wax maanaam yaa c'est très bonne idée mais na fekk daal gars yi sénégal yi jàpp si jeunes yi surtout la laay wax. man xaw dafay nekk un autre plan décennal xaw ma je mais ce que je sais. ou mhm. bien un plan Orsec bon de toute façon. mais mais li ma li nga xam ne moom laa gëm. mooy dakaar il faut ñu euh, euh, séparer ñaar. Mhm. am na zone yoo xam ne dafay taa. day inondé mhm. mais teewul nit ñi mën nañ faa dëkk. il suffit mu am infrastructure yi mu laaj. nit ñi mën nañ faa dëkk dëkk boo xam ne su tawee. il faut que ndox mi bari lool pour mu taa et que su taawee ndox ma du fa yàgg. am ay zone yoo xam ne nag zone yooyu këru ndox la. Mhm. cest à ndox moo fa dëkk. wàqi naan mi nga dem biir technopole gi nga tabax fay kër. tu mhm. tu vas avoir problèmes du monde. il faut que zone yooyu état bi am courage yu la Ablaye Wade bëggoon. Mhm. te Pape Sarr doon ko wax sànq te mu échec. mooy son plan jaxaay laa. man dama gëm ne dakaar am na carte yoo xam ne dañu soxla restructuration am na carte yoo xam ne dañu soxla ñu ñu ñu rayé ko de la carte. c'est-à-dire yooyu tuxal complètement ñi nga xam ne ñoom ñoo fa dëkk xaw ma la mhm. lañ leen tuxal wala xombal wala feneen rien du tout mais mhm. <laughs> mu servir à autre chose mhm. je sais pas ba xam ay parc lay doon wala ay forêt mais mais mais boo demee ci ci dëkk yu yu mag yi nga xam ne mu moo gën a mag ci àdduna bi tey mais da ngay dox ci biir dëkk bi à côté habitation yi mais da ngay gis ay forêt gis ay parc gis leneen ak leneen mhm. mais Dakar ñun on pense que partout on doit habiter là-bas surtout que Dakar nekk benn pres mhm. il yenn quartiers yi moom jurul tuxal mhm. il suffit d'avoir une bonne infrastructure pour que nit ñi dëkk fa état de Dakar aussi mais bien sûr loolu moom nañ ko nañ ko nangu boo jëlee ay ay régions yu mel ni Kaolack xam nga Kaolack moom li euh, image yi ma gis noonu comme inondation munoo wax ne c'est le surpeuplement. mais c'est le manque de canalisation d'infrastructure. voilà yu mel mm-hmm. mais Dakar c'est le surpeuplement mooy l'une des raisons. Mm-hmm. parce que da ngay gis cité yoo xam ne des quartiers flottants yoo xam ne foofu ndox rek moo fa doon jaar. d'accord j'ai l'habitude de dire ici que zone de captage kenn defa pour mu capter ay bal. yaa ngi ndox lay capter. capter wul ay boo fa dëkkee tamit yaa ngi indi problème. ñu tuddee ko cité des eaux. Ah, ah cité voilà mu ne nag cité des eaux. Mhm. cité des eaux kay loolu kay. keneen ngi tudd Wakhinane loolu kay nekkul cité des nit. <laughs> mais ce qui est sûr mooy régime régime régime régime. oui régime socialiste yi. Hmm. Abdou Diouf surtout. ak Ablaye Wade bu ñu respecté woon dakaar nañu ko nañu ko nañu ko bindee woon. zone yi ñu fi bàyyi woon ni kii bu fa kenn dëkk parce que c'est des zones non aedificandi Dakar bu tawee mën naa taa mais du solo nit ñi ni muy solo nii. d'accord mais soo fekkee fu ñu tuddee zone de captage nga dëkk fa mais Georges raison ah. nee na Diop nee na Pape Makhtar jooy naa ba Pape Makhtar Diop. bi mu bi ko waa SONES seet ne ko dañu bëgg mu daggal leen foofu mu dem waxi ko Abdou Diouf Abdou Diouf ne ko mais yow xanaa da ngaa bëgg man waa Ndakaaru rey ma yow kii bu ma ko daggalee waa SONES mooy maanaam yëpp. mooy mooy inondé inondé je sais pas yaa ngi fàttaliku interview Abdoulaye Matar Diop boobu. oui Abdou Diouf moom il ah. était très. strict euh, ah. sur ça quoi. <laughs> Dakar fi mu nekk nii ce qui est sûr mooy Pape Sané. Euh, te loolu man jàpp naa ne danger la. <laughs> dakaar tey loolu nga xam ne moom la waa ONAS di yor. pour xam fan la tiwo yi jaar. pour xam euh, parce que man mas nañ mas nañ mas nañ mas naa ci waxtaan ak waa ONAS yooyu mais am na benn seen benn tiwo wax ne moo jugee mooy jugee dakaar mooy jaar si ba fii ba Derkale. Mhm. jóge fii demaat ba ay marais zone de captage mhm. marais ak yooyu. mais dañuy dem ba affaire daf leen di mhm. pour ko mu leen di réer parce que nit ñi ñooy ñëw dëkk ci kaw. am na ku may wax léegi ne ma am na kër goo xam ne fii ci Ouest Foire gars yi euh, Descos ci boppam moo fa ñëw def fa seen trait yooyu ne fii bu fi kenn tabax parce que justement canalisation moo jaar ci suuf gars yi tabax nañ fa immeuble. yooyu bu continuer bul bul koo jiñ kenn ah. le plus de Dakar. mooy bi jógee. moo boobu laa wut nag émissaire. émissaire mooy seen kii yooyu. voilà mu nga mais xoolal nee nañu sax famille yi dëkk ci kaw. kepp kepp kepp keppaar problème mu cancer la ñuy am te bu leen waxee ne da ngeen fi war a génn ñu lànk. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Ah. am na solo bu baax a baax. Euh, ah, Fatou Fambodj tamit matériel yi nga xam ne kilifa yi dañ koy jël du yóbbu seen kër. no seen tool lañ koy yóbbu. am na ci inondation kay bu jàllee de pompe bi nekk sur la route de Rufisque. oui. nga xam ne moo doon tax banlieue bi caaro yi jàmm gën sam-sam daawul daawul taa mm-hmm. benn ministre ko jël yóbbu mm-hmm.